ok sa combat ak Siteu la toll parce que gis nañ tey journal suñu làmb bind na ni ñaari promoteur ñaari promoteur ñoo ngi démarrer seen bi ba joxe na accord am depuis États-Unis waaw ah, man dam joxe naa sama accord. lan moo changé ci diggante parce que version yi sa ñaari version yi bokkul da nga ne woon bëri woog moom. ci diggante bi mais après xam nga xam nga lépp loo gis waxtaan la. staff quoi. waaw ah. ba staff bi toogee wax. waaw ñoom ñu bëgg li ñu bëgg lañ leen defal mënuñ ci dara. Hmm. terewul combat royal bi moo la gën a ajal micro bi. waaw combat <laughs> combat royal moom sincèrement parlé bëgg naa ko trop. mais nag ki war roi bi moom nee na nga dem bëri jéeg franc mënu fee nekk di gauche droite ak yow chaque jour. kan Ibadou parcelle. i eh. mooy Ibadou parcelle bi Modou Lo na bàyyi sa xelam bi mu joxotaan man mënu ma concevoir roi des arènes boo xamante ne ba nga jëlee roi des arènes nga toog quatre ans bëriwoo. mais yooyu moo tax. saa nañ ñu bàyyi waaye. si Modou Lo wér na. wér na waaw waaw. mais où est boo bëriwul ak Ama mais te mën nga bëri jeeg keneen mais nga toog rek téye bi nga doo bëri ah, sama jàmbaar ji bu mu def loolu ay fan sam dañ ko namm. Ah, moom moom moo raw ay fan sam mais tamit. non non non na bàyyi na bàyyi bu ñu waxee mu xëcc kenn teg nee na Franc Franc am na client sama écrit waaw. nañu waxan dëgg Franc am na client samay cri su kan kan sax taxaw di ko wax Alioune Seye 2 bugguma taxaw naan ko euh, Jackson ma taxaw naan ko ñaa bu ndaw waaw lu mu bon bon bon ñoo ñoo ko raw Alioune Seye moo ko raw non Alioune Seye kay rawul Franc ko rawee Alioune Seye 2 rawul Franc raw ko Alioune Seye 2 raw Alioune Seye 2 ñi ma bëreel yëpp non d'accord mais Alioune laaj te Alioune Seye Alioune Seye 2 Forza la moo tax ma ne la du ma du ma sax xalaat di ko jox Alioune Seye 2 ñaa bu ndaw ak Jackson ñu ngi fi te xaar ñaari booy yi génnaat ci moom lañ koy lang day morom ñooñu ah ñoom ah, ñooñu ay moromam bañ léegi man maay morom <laughs> moromu kii fra Modou daal leen nga bëre moom waaw Modou na bàyyi muy def fii y a jamais 203 waaw loolu wax nañu Lac de Guiers 2 ñetti yoon ankay moom bëriwul ak Eumeu Sène ñaari yoon waaw bëriwul ak Balla Gaye ñaari yoon waaw ah? bëri ak yow ñaari yoon bëri ak man ñaari yoon man Eumeu Sène gor la gor la moo tax mu bëreeg man ñetti yoon pourtant bu ko neexoon mën na ne la ba daan naa la dëgër de. waaw du ma bëreeg moom. mais lan mooy problème kon nañ bàyyi xoolal defal ndànk xaaral nañ bàyyi affaire ragal yi yaa ngi dégg bu la wóoree ne da ngaa jël droit de pour bàyyee ak moom pour dem toog fee ah jël sa sa xaftaan sol toog na <laughs> way bàyyi ñu waaye gaañan ñëwal bëre si dañuy ñëw nga bëre bëreel wala nga tekki sa ngemb nga dem seeti leneen. waaw lu nekk ci xaftaan bi yow. xaftaan xaftaan lu ci nekk. waaw ah. maa ngi ni bi may ñëw xaftaan laa sol jàllabe. ibaadu la. saa temps yi ibaadu la. bismillahi rahmani rahim. ay Papis. foofu la koy téye. ah foofu baax na nag ibaadu bi foofu baax foofu temps la. waaw bul bëri de. ni mu ko defee nii dama cee d' accord rek bu mu bu mu bëree. bu mu bëree dana bëri moom dana ko def. ah quatre ans. quatre ans mais quatre ans blessure am na ci. waaye ah. wér blessure am na ci corona bi ñëw na booy saa waay man bëri naa ak blessure non blessure boobu mënoo ko bëri waale opération saa waay man ma blessé fii dem fii ñun sama loxo dama ma ak seen ci biir komba avant combat barki yonenti yàlla Muhammad bu fekkoon ci biir combat kon arbitre du koy gis avant combat ma koy nëbb ah maa ngi nuyu sama papa Mouhamed Ali Ndiaye soin yëpp moom ko doon defal soin yëpp yi ma doon gi moom moo ko doon defal ma ñëw taxaw bëri ak loolu damm damm barki alxuraanu karim. mais nag blessé ci mbagg nag opération ci mbagg. kenn waay loxo gën a garaaw lan mooy dal. loxo buy dal. lan mooy dal fan lay jógee ci mbagg lay jógee. ma lan mooy dal laa la wax di loxo mooy dal. tey bu dammee nu muy def. kon yow da ngaa def ni daal loolu blessure fala fala la wax non waxuma du blessure de. waaw pour ñu pour ñu waxuma gaañuwul. waaw mais dama la bu demee ba wér. waaw kay bëreel. bul toog naan ay. damay aar pour bëre instant bi kan lay bëreel. Ah? lay bëreel. mais bu bëree loog Ama. waaw ah kon na bëree la de Guiers 2 na bàyyi mi def toog toog ci saalam te kay bisaabam di ree ki ki ki ki un deux trois yow yi hmm. bàyyi say ngay def nag ñëwal nga sëgg bëri ñëwal bëri gaynde gi man xam naa ne gaynde nga ñëwal nga bëri na bàyyi naj gis nga ma la benn affaire nag quatre ans man ba ma juddoo ba léegi musuma gis loolu quatre ans nga yor roi des arènes bi quatre ans nga ne doo bëri waa léegi kon leen nañ nañu libéré ñu na wax ne moom bëreetul ñu may ko jàmm moom bu nee bëreetul rek ñu may ko jàmm. da nga jàpp ne dafa bàyyi bëre quoi. ah loolu ndurule ba fu muy mujj man tànk gisuma takk na ngemb. gëmoo ni. gëw ma ne ne moom ba léegi mu ngi doon bër mën nay entraîner nii nag waaw mën nay entraîner di def lu ko d'accord mais ku toog quatre ans. bëree wu ah, xamatuma ci yow dara. ah xamatuma ci yow dara sama ibaadu bi ndeysaan dama kaa bëgg nag. ah man da na fu ngeen jaar ah? bëgg di nga ko bëgg ndax na fu ngeen jaar man di nga ko bëgg ndax am na ngeen jaar ñaari yoon aller retour na la ñaari laaj a mettee mbëri mbëri yoo garaaw ñun ñun ñun xamante nañ suñu biir supporters yi ñoo xamul nag ak ak ñi nga xamante mooy entraîneurs yi ñoom duñu xam mais mbër bi ak mbër bi non bu ñu ñamantee dañuy xam ne ñii li tax ñuy tegg la dëggee de y a quelque chose man ndeysaan surtout Samba Xoyaan bi billaay dañuy waxante dëgg rek mais der dëgg la. ama billaay wala der dëgg la. gaynde la de. non gaynde la. waaw tey mu ngi nii mu ngi war a bëreeg Balla Gaye ñetti yoon. waaw. ah waaw. bëreeg Lac de ñetti yoon. waaw. ah ah mais nag yooyu dafa ko dàq ay combat grand contre petit ah. ay combat ay combat jànq père léegi déggoo li ma la wax de. bañuma combat grand contre petit de ndax man jaar naa ci. Ah bañuma lool de grand contre petit bañuma ko. Ah. bañuma Modou Lo Ama Balde bañu ma ko man man je suis avec vous. lépp day leer man bañu ma bañu ma bañu ma bañu ma grand contre petit bi bañu ma ñoom noonu la ñu ko bëggee nee grand contre petit bañu ma ko mais tamit boo yore roi des arènes grand contre petit yow benn petit bi dem na ba amee beneen combat nga toog ma toog ñun la toog di xaar ni te fan siy soxlawaat y a jamais 203 lu tax nanguñu laal la dëgër de xam nañ ko. moom kay ngay wax moom kay bu mu jël de li mu def nii ak ma bu mu jël mu jël. na bañ ba xalangu na na ko jàpp ci franc rek franc franc franc franc franc. waaw ah. franc franc. <laughs> puus na la franc de moom daal nee na taxaw na moo bëggee bëri nga ñëw bëri franc. na <laughs> na jël franc. na jël franc. <laughs> Oh, na laa ma ñu ma bëree tapet. ah moom moom nag bokkul ci tapet yi. Ah? bokkul ci ragal yi de. na bëre. bokkul ci ragal yi de. xam nga di nga yor benn affaire nga xam ne ñëpp requin yëpp ñu ngi taxaw di xaar. li nga yor doo nangoo bëre il faut nga toog kii ci tu dundu ci tuuti yoo ko quatre ans yooyu xam nga dund ci yooyu noonu. noos si quoi yaay ah noos si tuuti. day noos si couronne bi instant na ci noos hmm. c'est bien na ci noos bu baax a baax. aywa kontaan naa ci yow Papis. non bëgg ci yow bëgg ci yow ah bëgg ci yow père yow nit ku baax nga vraiment. alhamdulilah ngi lay ñaanal yàlla yàlla na la yàlla defal jàmm.